ñu faral à chaque fois di ñu seetaan euh, waxtu wile saa jotee ngeen xam ne euh, ça sera vraiment un plaisir bu fekkoon sama sago fekk la fi nga toog ne la jàpp loxo alors encore une fois yor yor di boo xamante ne saa su ne euh, day daal non y a pas de tabou tout ce qu'on va parler yéen yéen ñi yéen a koy waral des thèmes yoo xam c'est une équipe donc équipe de choc boo xamante ne saa su ne day daal di dox ci ni ni mel waaye oustaz mi nga xamante ne chaque fois moom lay fegoo plateau bi muy waxtaan waxtaan yu am solo waaye tamit ñu bëgg ko lool ñu koy laaj lool i tamit ngeen miin ko lool ci écran bile ci waxtu bile ma naan oustaz salaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah. wasalaatu wasalaamu ala mawlu ala mawlana rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kan ñu ngi lay nuyu xaaji Cerno di la béggee di la ziar di la ñaanal yàlla jàmm ñaan yàlla borom bi subhaanahu wa mu boole ñu ñun ñëpp defal ñu jàmm ci daraje Sayyidina Muhammad ñu nuyu la tabaarakallaahu nuyu aja aja astu it tabaarakallaahu nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan nuyu xalif généraux yi ci réew mi yëpp ñaan yàlla seen liggéeyu maam yàlla na ko yàlla mottali bi si jaay sayyiduna Muhammad ñaanal mboolem jullit rek boo xam ne yaa ngi ñuy déglu yàlla na la yàlla defal tawfiix ñu ziyaar jullit yëpp nag tabaarakallaahu comme li ñu njol màkk digaloon na dee leen ziyaara seen mbokk jullit fi ñu toog nag ñu ngi ziar ñëpp képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan ñu ngi lay bégg tabarakallahu macha allah. merci beaucoup même les Sénégalais au niveau de la diaspora aussi on le salue mais ngeen xam émission bi comme ni ma leen ko waxee ay kilifa ñooy toog di ko daal di seetaan parce que on a vraiment des répercussions yoo xamante ni c'est très bon raison pour laquelle ñi nit ni ngeen ñu wax rek làbbali fas taxut fasaraw waaye nag dañuy xool euh, comment on va vous faire plaisir chers téléspectateurs encore une fois thème bi nga xamante ne ba tey doyul xëy na temps bi ñu accordel moo xawut a doy muy thème sëy wax nañ ci semaine bee passée mais tey jii moom mooy dernière partie bi ba jëmmi jamono comme Oustaz Alioune ko daal di waxee mais itamit du tee dañ cay daal di ñëwaat ngëneel yeeg ni ni mel à fois dañ cay daal di ñëwaat numéro baa ngoogu chers téléspectateurs vous pouvez nous appeler au 88 628 02 02 ngeen participer ci émission bi wala sax ñu ngi actuellement en direct sur nos plateformes Facebook Instagram YouTube alors pourquoi pas essayer au moins d'avoir de question ngeen poser ko comme ça oustaz di ci répondre balaa ma ci xuus damay bàyyi oustaz. waaw xam nga nag xam nga nag kan diine diine dafa am ay texte. Mhm. rasulullahi moo ne woon xam ni ngay jaamoo yàlla war na jar nga dem ba siin ngir sàkku ji ko. Mhm. rasul nee ne xam noo jaamoo yàlla farata mhm. muy ci côté góor di ci côté jigéen. sëy bi ngay def war nga mën a xam sart yi ci rasulullah yi diggale du da ngay ñëw rek dama ko sentir nii du gaa plaisir laa ci am rek ma sóobu ci déedéet julli bi ngay def kan war nga ci mën a xam lu ci yàlla diggale sangu farata bi ngay def war nga mën a xàmmee farata yeeg sunna yi mais nga gis kan koo xam ne dem na ba màgget ñëw taxaw di laaj sangu farata lu doy waar dem ba màgget am ay doom say doom ami jabar nga ami sët ñëw taxaw ne maa ngi laaj ñu ñuy sangoo farata mais kan kooku ci lan la nekkoon. te nga ne dangaa julli ci këru jullit. mais kan li ne ci réew mi nañ ko waxat mais da gis koo xam ne dafay toog ñu ne julli la nangul mu jàng alxuraan am sa doom nga woote ne jullit la nga ah nga taxaw ne man jullit laa ne sama doom dama ko yóbbu mu jàng alxuraan kan boobu ban façon jullit la quoi boobu boobu. xam naa di nga ci ñëw nga yaatal ci beneen thème incha allah mais kooku beneen affaire la mhm. kon nag tabaarakallaahu lii tax nag moom mhm. yooyu yëpp nag dégagé wu mooy ñu xam farata yi ñu yàlla digal mhm. farata yi ñu yàlla digal nag da cee bokk say kan dafa bokk ci farata yi ndax sunna la rasulullahi moo ko wax daf ne fa man raqiba an sunna fa man raqiba ndikaa raqiba an sunnati fa man raqiba an sunnati faqat raqiba an nii rasulullahi moo ne sëy ci boppam sunna la mu ne nag képp koo xam ne dem na ba bëgg xemmam sama sunna ah da ngay sóobu nag ci sëy jàngoon nen nag tabaarakallaahu kan jàngale woon nen fi takk jabar fu mu yem jabar fu mu yem jàngale woon nañ ko nu ñu sayyiduna Muhammad yëpp jàngalee ne tabaarakallaahu kuy mayee ci boppam nii nga war a mayee waroo méttil waroo taral sëy waaw war nga oyofal ko ndax jol màkk nii ne sëy yi sëy bi ci gën a barke mooy boo xam ne jàpp nden ndel ko yemuñu ci waqiyatu sadaqati ñu néewal can ga tabaarakallaahu yooyu rasulullahi jàngale na ko léegi nag kan faaw nag ñu jàngale gën li nga xam ne dafa ne ci sëy parce que gaa yaa ngi sëy rek waaye nag sëy dafa am gën yi ci ne wax naa la bii passé na la sëy mooy loo xam ne da ngay sëy di am plaisir yàlla di la bindal tiyaaba da ngay sëy di am plaisir yàlla di la bindal tiyaaba ngir ngëneel yi ci ne parce que yàlla daf ko fonk. foofu foog nga insister bu foofu nga ñëw foofu. waaw xam nga kooku faw ñu ñëw ci. dama ne la kan da ngay sëy di am plaisir yàlla di la bindal tiyaaba kan rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo wax hadis bi nag ñu jëlee ko ci Muaz. rasulullahi nee na képp nee na nee na na nee na julli nee na julli koo xam ne marié la moo gën ñeent fukki julli koo xam ne célibataire la maanaam julli marié dañuy gën a compter julli marié maanaam moo ëpp tiyaaba macha allah Muas ibnu Jabal radiyallahu taala anu daf ne salaatul mutasawwiji afdalu min arbaina salaatu min min xayrihi mhm. nee na julli ki nga xam ne marie la moo gën julli koo xam ne célibataire la ba muy tolloog ñeent fukk julli célibataire bi maanaam oustaz ci misaal bu fekkee ni maanaam man julli naa suba liñ may bindal ma euh, célibataire bi duñ ko. teg dara non non duñ ko bindal. même bu fekkee imam la. même bu fekkee moom la. d'abord maanaam maanaam même bu fekkee imam maanaam moom imam bi la jiite célibataire la. moom buy salibateer sax yow li ngay am moom amu ko allahu akbar loolu ngëneel yi ko yàlla defal la ba léegi addis mooy wax de jëlee nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu mu ne tazawaju fa inna yawma maa tazawuji xayrun min ibadati alfi ama nee na sëy leen takk leen soxna jigéen ñi dem leen sëy ngeen bàyyi xel ne boo jaamu woon nee na junney at te nekk célibataire nee na kee bu sëyee benn fan ëpp la ngëneel allah akbar sëy sëy waaw sëy sëy macha allah <laughs> mais kan waxuma takk nii rek de ah sëy sëy rapport sëy sëy sëy jonjante moo tax tabaarakallaahu muy wax xadis bi nag tabaarakallaahu dañ ko jële ci Ibn Abbas léegi nag ngëneel yooyu noonu dafa ne ci sëy mhm. gis nga njool màkk xam ne ne moom rasulullahi moom moo ko wax wax ju leer nañ nañ sallallahu alayhi wa daf na ginnaaw bi nga gëmee yàlla jullit bi bu xasee gëm yàlla maa istifaadul mumini baada taqwallaahu xayran amul lu gën jullit bi gannaaw bu mu gëmee yàlla ragal yàlla gu wér mhm. amul lu ko gën lu dul mu am jabar ju baax macha allah almaratu saalih mhm. jabar joo xam ne in amaraha ataahu boo ko digalee mu topp li ko digal mhm. mais kan am na jigéen ñoo xam ne dañuy taxaw di sëy seen jëkkër leen digal ñu ne mukk duñ ko def loolu mbaa ci ngoro gi la mën na nekk ci ngoro gi mën na nekk ci lépp. mais kan nan ngay sëyi sa jëkkër nga tàgg ko mu ne la bul dem nga ne dangay dem. ah am na am am rasulullahi nee na boo ko defee. malaaka yi nekk asamaanu juróom-ñaar ñu ngi lay rëbb. malaaka yu nekk suuf ba muy juróom-ñaar ñu mi bañ ndigalu. xataa xataa ba ngay duggaat sa biir kër. maanaam nga génn te sa borom te ba ngay dem tàggoo sa borom kër. wala nga tàgg mu la bul dem. nga dem force. dañ lay rëbb ba nga di rëbb rëbb laa wax te booy génn sax te demoo sa ndigalu borom kër néeg bi danaan la yàlla boo fi duggaat allahu akbar mais yooyu yooyu nañ ci waxaat kan oustaz ñuy dem te ju ñu tàggu ñoo xamante ne dañ naan euh, garaawul comme que génn na rek amul benn problème damay dem vite fait ñëwaat loolu kan sa jëkkër ak fu mu mënta nekk balaa ngay dem danga koy tàggu même bu fekkee. yëguloo ne sikki jigéen sikki jigéen yii may tudd ci la bokk. Hmm. gaaw tànk. gaaw tànk ci sikki yi la. Hmm. sa jëkkër bu ne mes nga ne menteng. bu ne fras nga ne fras. bu ne menteng nga ne menteng bu ne fëy nga ne fëy balaa mu naan fëy nga def nii. <laughs> subhanallah gaaw tànk. Hmm. mën a tontu nag. am na jigéen ñoo xam ne kan du ñu wan làmmeñ. boo ne mbay ñu ne mbayeen <laughs> boo ne bëy ñu ne béy <laughs> dañuy dolli boo ne papa ñu ne papa papa bay <laughs> am na jigéen ñoo xam ne comme ay bëy mbel mbel mbel mbel mbel mbel. waaw oustaz loolu est-ce que du ko ci góor ki. mais kan kan yëguloo ne jabar baaxul. maanaam. jabar baaxul jabar moo baaxul. li loolu. jabar laa ne baaxul. firil ma ko oustaz dégguma wala. jabar baaxul de xam nga jabar boo ko amee. yëguloo ne jëkkër baaxul jabar baaxul. lu baax. kan da gis góor goo xam ne day dox ci mbedd bi moom kese di dox di jaay naan nii di jaay jabar la yor kër gi kan. oustaz foog nga firil foofu. kan jabar jiin gi jiin gi day mën a jàmmat ah man kay sama lii sama lii sama lii sama kër yaay ba ma fa nekkee sama kër papa lii sama kër lii amu fi woon de am fii. mais da nga gis da dafa am benn soxna. dafa xuloog boroom këram. ba mu xuloog moom wax papa ji ne ko jël si ma damay ñib si papa ji ne ko kañ dem jëkkër ji ne ko jëlal say bagages. mu jël bagage si dugg ci biir kër gi mu ngi fa yegg nag ay vingt une heures ay vingt deux heures mu yegg nag papa ji ne ko ku am kër euh, ku am jëkkër koo gis ku ne am na kër ndey am na kër baay fii sa kër baay duggal ci néeg bi fatul ndeyang fa faatong fa moomeeng fa ummeeng fa nga bokk ak ñun néeg bi. <laughs> subhanallah. <laughs> te moom moom moom këram rek appartement moom jabaram moom jëkkëram. Mm-hmm. mu xat. néeg boo xam ne yaag ñeenti jigéen yéen a fa war a bokk tëdd. mu taxaw nag ne ko papa. xoolaat ko ne ko ah. lu sama yaay muñ ba toog fi juut fi ñii. su ma demee fee muñ juut ko fa dafa en fait boo fa taxawee dafa am ñoo xamante ne dañuy yàkkamti ñibbi seeni kër. par exemple ñoom bi ñu nekkee seen kër papa dañoo yoroon seen néegu bopp. Mhm. yor seen lippi bopp. Mhm. mais dañuy génn nga xam ne jigéen maanaam dëkkul kër papam kër jëkkëram la dëkk. dëkk fa de. da ngay génn rek am ku dugg sa néeg. léegi yow boo ñëwaatee bëgg récupérer loola day metti bu ah. boobaa mu ñu ci gën a bari dañoo divorce mais dañoo xat seeni kër papa mënul nekk kan parce que soit dañoo njaboot indaale seen njaboot ak seen i bagage mhm. Mhm. nu ñu meloon avant melatuñ ko mhm. mais nag nit ñi war nañ cee bàyyi xel seen kër bàyyi la nag kenn mënu ci dara seen kër bàyyi la non waaw mais mais li fa amoon amatu fa li am daal mooy la fa amoon moom du fa amati fii laa woon xam nga yow ba ngay dem kenn nga kan nga ñëw indaale cinq amoo biir amoo fa amoo fa néeg fekk néeg ba sa beneen rakk takk na soxna ba roof ko mais kan ak li ne ci kër yi kër famille kan nooy def léegi nag ma ne la jabar baaxul baa gi nag day bëri wax mbel mbel mbel guddul jeex mel ni bëy yëguloo ne kan am na góor ñu faatu bu yàgg te li waral ñu faatu mooy seen jabar waxu surtout waxu guddi boo tourné nii mu ne nang nang nang nga tund ni mu ne mbel mbel mbel nga tund ni mu ne mbel mbel mbel mbel bëy sa kaw raaga nag moom day réew mhm. moo tax jabar baaxul jin gi day mën a jàmmat baa gi mu bëri wax raaw mu réew muy jigéen xam nga jabaru bëy baaxul keroog nag waxoon nga fi jabaru bëy jabaru xaw ma jabaru xar xaw ma nag baaxul xam nga baaxul kan yàlla ci yàlla musal jigéen boo xam ne loo ko waxul xamu ko moom xamu ko daal moom jógewul daal jigéen boo xam nag jongewul moom jongewul daal moom loo ko waxul xamu ko. la hawla wala quwwata. loolu yàlla nañ ci yàlla musal loolu nag mooy jabaru xar kan. léegi nag jëkkër tamit baaxul kan. ci ban anam. jigéen boo gis kan mu am yaram toll lu ko neex xëy am jëkkër di jeex tak tak tak jëkkër la am kër ga. amee ah, am na ñoo xam nag yaa oustaz est-ce que du bu ñu duggee ci néegu sëy bu ñu xamee bu ñu xamee góor tuuti am ñoo xam ne dañuy am yaram am ñoo xam ne dañuy dañuy déggoo li ma la wax pata laa wax man waxuma ko am yaram nii rek de waxuma ay taay fil bu dugg nii jeex tuuti nii déedéet góor jigéen boo gis mu nekk pata tool lu ko neex xëy dugg ci góor di jeex rek jëkkër la am kër ga kan mais euh, waa léegi attends bu fekkee nag am na ñoo xamante ne ñoom seen taille arrangé wu leen comme par exemple euh, man mii bu ma yoree luur kër ga damay day sonn vous comprenez donc est-ce que des fois du ci comme sama genre ñoo ko naan na nga régime nga jëm a xool <laughs> nan ngay gérer oustaz li ma la xam naa ko parce que aujourd'hui da ngeen nekk ci nekk xale bi am benn malaise nga war koo yëkkati yow oustaz léegi est-ce que du yow yaa koy naan genre nga nga nga limiter sa pois <laughs> ngir en cas de woyaa yooyu nga mën koo yëkkati. déedéet déedéet waay kan. mais nag kan oustaz am na couple yu àndul de. mais am na couple yoo xam ne nag kan lu mu àndul àndul àndul ak lu mu àndul àndul xanaa nag loolu du ci aju wàññi lekk bi ndax boo nangamee ma nangam déedéet kan. kan jigéen boo ko takki ci mu ci kër gi li ngay njëkk bëgg nag mooy kan muy lekk. waa na lekk. nay lekk bu baax a baax. mais régime dafa am am ñoo xam ne léegi surtout salle fitness yi jigéen ñi rek ka fa ne yow Oustaz salle d'entraînement yi léegi jigéen ñi. képp képp fa ne war nañ cee wax kan. mais yow kan jigéen ñu koy doyee nooy nooy la ko lislaam sant mu nooy népp népp népp lu muy def salle kat. Oustaz li ma la waxul Oustaz xale yi dañuy dañuy defar seeni form Oustaz salle day defal forme day tax xale bi gën a gën a gën a meññ. dafa am solo de li ma lay waaye nag am ay góor yàlla yu bari lu leen di yóbbu lu leen di yóbbu saal fu ne nii <laughs> mooy xale jigéen yal mais dama ne kan mhm. Mhm. jigéen laa ne mhm. yàlla sant ko muuru muur ay cëram demal toog di bëggee sa jëkkër la la la li lislaam sant ah yow ngay góor dem di sport rek nga nekk jigéen naan da ngay nekk ci kii bi di kii ak waaye nag la santé dafa am solo sport dafa bokk ci luy defar wér-gu-yaram. ah loolu moom dañ koy yooyu kii nii la rek kii nii gars yi tudd nii rek. yooyu kan yooyu ah. mais par exemple bu fekkee am nga sa jabar mu mu mu muy dem muy dem salle. Oustaz mu solu ak euh, ni mu mel mu sol ay baawam yoo xam ne day génne forme bi yëpp ba keneen gis ka xelam ne ca ndax loolu du provocation. mais jigéen ñi la kat loolu jigéen ñi la yëguloo ne fi léegi fu heure bu jigéen solee kan loo xam ne góor moom ni mu ko solee góor teg na ci bëtam ba am lu mu ci yëg bàkkaar yee góor gi yor moom bu amee cinquante moom góor gi moom day am cent moom ndaw si. wa wa wala góor lu ko ci góor dafa xool rek. lu ko ci lan. waaw mais ci mbedd mi léegi. lépp waaye nga léegi. loo xamante ne dafa doon nëbbu yaw saa léegi nëbbatuwul. daaneel na. kan gis nga rasulullah. yàlla ci boppam dafa xam góor xam jigéen. Eh, eh. yàlla bind góor bind jigéen. léegi ñun duñ def bés yaaw. léegi nag lan moo tax place léegi nag lan moo tax. été bi sa <laughs> boo demee plage genre loo bëggut a gis ngay gis wala xawla wala xuwata parce que. aujourd'hui am na ñu bari lu ci mel ni ñoom Paa Omar wala et cetera dañ entraîné wu ñu yaa xayti dañuy dem plage parce que pour duufal seeni bët. parce que tey lu ñu doon nëbb moom mooy feeñ ci mbedd mi oustaz exemple de pièces nit bu sol deux pièces romb ak yow nii yow fi ngay sangu loo gëmm-gëmm gis wéykat bi ne loo dëgër dëgër <laughs> jooy oustaz yow war na ci wax tamit mais man kan man waxuma yow loo gëmm-gëmm gis de mhm. mais ki nga gis laa wax bàkkaaram moom mais yow mi ñu gis lu dara walla yaa fa dem gis kan. mais genre yow. mais kan yaa fa dem gis te sariya xam nga lu mu la may. Ah. boo ne nii mais boo nii nag nii bokk nag. <laughs> bàkkaar di gën a bari ah non non mais kan xam nga may benn xool. benn xool bu taxawul kan dafa leer de. non benn xool mais du maanaam maanaam. kan déedéet benn nii nii nga defaat nii nii mooy bàkkaar mais nga ni bokk loolu benn xool la <laughs> il faut ñu leeral foofu oustaz mais kan. maanaam boo ne nii nii. yàlla yaa ne nii caméra bi. yaa ne nii gis jigéen muy kii nga ne nii. Eh, mais nga ne nii rek ne ko ci jàkk kan. nii. bokk mais kan bu doon loolu kay duñ wax ñaari xool kon ka lay bàyyi nga fixé ne nii rek. waaw mais waxuñu fixé. dañoo ne mais kan kan. jigéen bu la lewul bàyyil mu dem kan. jarul di xool ak nangam. dañ ne koo bëgg a takk sax kan. ñaar yi lañ la may yii nga xool yii. tikki njar ak fii. mais oustaz. mais kan nga dem bu fekkee yaa ngi génn nga ne da ngay gëmm say bët oustaz doo àgg fi nga jëm. non non si oto yi yaa oustaz ci arrêt yi loxuñu ko ko ko loolu nag kan. bàkkaar yooyu nag laa ne jigéen yi ko sol ñoo koy moom kan. ah mais góor ci yow nag day am moom bu bu heure bu fixé rek am bu nee nii nag tourné nag. kon ñun ñëpp ñëpp fu mu ne bu nee bu nee nii rek tourné moom xayma waaye fii léegi jigéen nag moom bi sol baam di dox ci mbedd bi sol xaw ma jumbax ëwul awut xaw ma awul xaw ma bu mu ci doon daal da ngay gis jigéen ñoo xam ne kan mm-hmm. mais cité rek la ñuy sol génn seen seen jumbax ne saax ci mbedd mi yonantu ne jigéen jumbaxam bu ko ñeent fukki góor gisee mënatul jur ku baax allah jur doom baax yéen jigéen ñépp bàyyi leen ko xel rasul nee na jigéen jumbaxam bu ko ñeent fukki góor gisee mënatul jur ku baax définitivement njool maag kaa wax ay waxam yu leer nañ la léegi yow ngay jigéen di sol yoo xam ne sa jumbéex bi danaan saax ci biti. bu tàngee oustaz nga ñëw nag TikTok. bu tàngee dañuy nga xam ne TikTok kenn xamul ñaata vie ñooy liir nga ñëw ne saax sa jumbax ne maa ngi di yëlëbu. mais kan caaxaan googu mooy lan kan. yàlla nañ ci yàlla musal. kan yooyu nag jigéen ñi bëgg a dëkkee jaaduwul. Mm-hmm. solu ko yii fiir la du solu jullit de. solu ko yii fiir la maanaam sol gii ñuy sol lii di këll këll. bu ci kenn jàpp na nag boo ko solee ba pare jullit bu taxaw nga solu bi yéeféer nga léegi yow bu fekkee ni par exemple sa jëkkër noonu la la gisee bëggee la noonu yow saas yow ni ngay soloo maanaam bëggul nga muuru bëggul nga def yëfu meer dafa bëgg nga nga nga doon koo xamante ne macha allah yàlla ni mu la bindee ak moom ni mu la gisee bàyyeeg jumbax aaw di yeeg ci kaw noonu la la bëggee oustaz mu takkee la noonu est-ce que am nga droit bégal sa jëkkër parce que bégal sa jëkkër tamit dafa am solo. c'est silbul xaram. waaye da nga ne sa jëkkër li mu bëgg def ko. kan bëggal sa jëkkër ci lu dul lu xaraam kan bu dee solo boobu noonu ba nga mu defal la ay jumb ay ay jumb ah, wala ni nga koy waxee. waaw yu gàtt ak ya ci tegu. waaw yooyu. waaw na yem ci kër gi. bu dee ci kër gi dañ cee yem ak nekk ay nit na yem ci néeg bi kan. moo tax intimité kan sariya dafa am sutura. mais kan ki nga takk nga bëgg a dox ak moom ne ah comme sama bànneex sama bànneexu jëkkër. oustaz dafa neex nag góor. fi ne keneen mu ngi koy gis. keneen mu ngi koy gis bàkkaar la ci am. bu dee yow bu dee yow góor gi yaa ko digal da am bàkkaar. dafa neex nag ci góor def moom it day am bàkkaar. dafa neex ci góor ngay dox di puuxaroo sa jabar. di. di puuxaroo sa jabar. lan ngay puuxaree woo ci moom taar wa. ci taar wa. Mhm. taar wa ngay puuxaree woo ci moom. mais ci paas ak solo yu bon nag kan. ah ay sol yu bon ngay tug di ci procuré sa jabar sama jabar fi dàq sol lu bon. non genre du sol lu bon moo fi dàq sol lu bon moo fi dàq ko sol baat. sama jabar fi dàq sol jumax ëw sama jabar fi dàq sol bu yu bon yi. loolu kan ma ci titre kat. am ñoo xam nag bu fekkoon bu bu fekkoon seen sago ñu doon ay baax <laughs> waaye ñu wax. kan. Mhm. leen daal naa ko xam. Mhm. jigéen daal fileeg mu ngi sol lu bon. lu bon li muy sol bàkkaar kenn du ko ci ëppale. mais yàlla daf ñu diggal dafa diggal jigéen ñi ne eh yéen ñi sëyagul toog leen seen pooju ndey yi boo koy wax ne dañuy jàpp ne da xew yi xew yi kii wax lii moo xew yi fekk wax alquran la alquran moo ne toog leen seen pooju nday yi bu ngeen ci yeb muuru leen yéen jigéen ñi muuru leen muuru leen mais yow nga taxaw ne du ma muuru muuru ma maa bañ. mais kan pour lan loolu. waaw loolu moom duma ko cautionner personnellement. mais li ma moom xanaa nag kan. mais li ma xam ne muy. maanaam ah? yow sa jëkkër xam nga tey euh, dañoo ne. Euh, mais kan jigéen aljanam mu ngi ci tànk su mu ngi ci suufu tànk jëkkëram. Uh-huh. n'est-ce pas. Mm-hmm. léegi yow sa jëkkër lii la bëgg. nga def loola pour bégal ko da nga ciy am tiyaaba yaa. xayma ilaa ilaa bil xaraam. lu dul mu jëm ci lu xaraam kan. lu yàlla tere lu dul mu bañ cee jëm suñ bégal sa jëkkër bégal ko ci lu yàlla diggale wala moo tax kan sëyee buntu gannaaw am na ñu ko bëgg la moo tax ñu euh, euh, bégal seen jëkkër du tax duñ ci duñ ko def waaw loolu day am na bon loolu ah mais nag salaamaaleykum faatu asakum anasittum la alquran wax islam moo ne seeni jabar yi seeni tool lañ dikkee leen comme nu leen neexe ci armoire bi ci kamot bi ci kaw yaa xam yaa xaytu yooyu kay oustaz loolu ah yàlla. <laughs> kat mi mu ngi may rey. waaw dégg amoo leen sens interdit. amoo leen heure amoo leen midi y' a pas de amul lu leen neex sa jabar la dikkee ko comme num la neexee sa tool la bayal donc. loolu la alxuraan wax nag. wa kay waaye nag tool bi nag bokkul buntu ginnaaw bokku ci. nisaa u xarsun lakum faatu xarsakum ana sittum la wax léegi nag xarsakum gi xam nga fan la ci karam kan mais pas ilal duburu du ci gannaaw ci kan ci karam lañ la wax ñëwal nu la neexee d'accord waaye nag wax qaddimu li anfusikum xam nga loolu mooy lan leneen loo ci dépassé ah yàllaa ngi nii leneen lu la ci yàlla tere nga def ko yàllaa ngi nii kon ci gannaaw kan dafa xaram mu leer nañ léegi nag sa bëggal sa jëkkër dina tax nga yegg ci. bu fekkee sa jëkkër loolu la bëgg nag oustaz. dafa xaram kan loolu dafa nekk définitivement xaraam ju leer nag ñu wax ko mu leer nag dafa xaraam. waa léegi beneen beneen beneen be beneen laaj gu gu gu gu ndaw gu jëm ci sëy ba tey jii sëy bëggalante la am ñoo xam ne lu yàlla xam doy na loo leen waxul xamuñu ko comme li nga wax rek jonge wuñu xamuñu dara. Mm-hmm. vous avez compris donc est-ce que ñooñu tey. Euh, ku góor ki mënu leen nax defloo leen lu loo xamante ne ñoom xamuñu ko te dafa xaraam. bàkkaar gi ci ku koy jël. bàkkaar yi boobaa koy jël mooy ko góor mais jigéen ñi nag war nañoo mën a xam ne. jigéen ñi ci mais kan. jigéen ñi nañu xam na na ngeen ko xam nag kon xam leen ku yéen ñiy seetaan xam leen ne buntu gannaaw dafa xaraam définitivement. sharia moo araamal jigéen góor di ko dikkee ci bunti gannaaw. daf naa xoolam bàyyi leen tool bi bàyyi leen nu mu leen neexee comme ni ko kan ni nga ko waxee bu la neexee yaa xam yéeg leen ci kaw armoire ba kan leen tagar gi kan def ko ci suuf kan bu la neexee ca kaw a kaw kan bu la neexee wàcc leen ci suufu suuf yooyu yëpp ci sans départ ci yéen kan bu la neexee teg ko ci xoola teg ko ci salle bi kan yaa choisir bu la neexee teg ko ci taabul à manger loolu am na solo macha allah yàlla nañu yàlla may ñu teg ko ci saa nag ba tey ci la nekkoon. kan. yooyu noonu yëpp tabaarakallaahu baax na. mais kan nag li gën kan. li gën charia ko bëgg. biir néeg. mu ànd ak kan. bu ay làmp tàkk. Eh, ma kan. na na am sutura. saa yooyu moom man moom ànduma ceeg na lëndëm ak eh, mais voyage yi lu lu muy jëriñ oustaz léegi boo demee ci marché yi am na ay boutiques yoo xam te c'est yi ñuy jaay ci ay astuces yu jigéen pour bégal sa jëkkër mais yaa oustaz lii ni sax euh, islam sax daf ko digle bégal leen seeni jëkkër ay arsenal yoo xam ne yaa oustaz macha allah donc loolu foog foog foog foog aussi ñu wax ci loolu xaramul oustaz ak ay ay limites yooyu yooyu araamul man waxuma ne dafa xaraam de kan. maanaam lan mais kan dama wax lu gën. dama ne li gën laa wax lu sharia wax ne lii moo ëpp sutura mais sharia waxu la ne da nga koy def am bàkkaar kan. waaw Oustaz bu ñu ko yóbbee ci farata ak na comme genre. maanaam ñu ne lii du farata lii du force du farata mooy lépp lu force loolu lii force la. maanaam kan bu leen neexee ñu solu yooyu noonu nga wax taal làmp bi mu tàkk. mais charia moo ne li ëpp li gën mooy mu am sutura. ay loolu du force. léegi nag léegi nag kan. waxkat bi mu ngi nii gis nga daf ne laa tansurul farja la dal jimaa. nee na laa tansuru bul xool al farja pii ndaw si. la dal jimaa boo demee bay sëy bul xool sa bët yi bu mu tegu ci kii yu ndaw si. nee na ndaw si it bosom bu mu tegu sa bos nee na wa daaka makruhun la dal ijmaa nee na borom xam-xam yi dañ ne loolu dañu koo sib. oustaz loolu mënul nekk ci jamono bi non dama la koy wax rek parce que léegi am na xeetu baax baax yoo xew yoo xam ne oustaz na lay leer ni pré préliminaire yi ñuy wax fokk ñu koy jëfee parce que xam nga tey loolu mën naa indi ay problème mu sëy yaa oustaz parce que mënumaa wax ne wala mënumaa dugg foo ay domaines yoo xamante ne tamit ñëpp ma ko gën a xam. tey jii par exemple am na ñoo xamante maanaam seen i ma mais dañ ciy sëgg di foo loolu yëpp ay ay ay ay ay xeetu foo la te yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko. déet kan déet bul bul bul bul bul wax loolu kan kan gis nga sëy dafa am ay adab waxkat bi mu ngi koy weex léegi nee na sumal jamaa falahul adab sëy daa am ay teggin kan kan yàllaa ko daganal léegi nu ma neex laa koy defee kan. waaw mais yow yow ci ginaaw lañ la tere yaa xayti amul leneen lañ la tere ci leneen. gis nga daf la sëy. am na ay teggin ata biyil xaddiisi wal kitaab nee na téere yi ñëw neen ci xaddiis yi ñëw ci wax na lii ay teggin la mais kan téere yu bëri dañ ne taal lamp jaaduwul dafa rafetul wala dafa jaaduwul dafa jaaduwul lañ wax ne it ne rafetul ne amul sutura am ñoo xam ne ñoom dañ ko tere définitivement mais nag am ñoo xam ne mais nag sariya nag moom moo ko terewul dafa nekk sariya loo xam ne al alquran nag moom moo ñu waxul ne taal làmp def na ni yeeg def na ni yooyu yooyu moom tabaarakallaahu alquran insisté wu ci lu mu ci wax doo ñëw taxaw di mukk dafa xaraam araamul kan. jeex na kon araamul waaye nag waaye nag tey ji waaye nag am daal tabaarakallaahu. yu ci yu ci am donc le temps qu'on donc euh, on on va installer Adji euh, avant euh, li may ñëw balaa maa dugal Adji léegi léegi mais li ma li ma li ma la mën a wax muy am na loo xamante ne tey par exemple téere yi mën nañ ko bañ a topp. parce que ay téere dong la. Euh, te tamit am na ñoo xamante ne d'accord nañ ci am ñoo xam ne d'accorduñ ci. gis nga waxoon naa la ko fii bii paase kan. nee naa la rasulullah. moo ne ixtilaafa sama xeet wii. Mhm. ixtilaafa bi xéwal la. rasul hadis bii may waaj a wax amul ku ci génnul. du Buxaari. amul xoola maanaam hadis yi may may waaj a wax dafa wér yonent euh, masuur la saxiix la masuur la hadis bi nag daa siw. ñëpp ko xam. njol màkk moo ne diine. lu waaj muttafaqun alayhi waaw ñëppoo ci màkk moo ne diine. laayanti biir la. xul naa lillaahi wa li kitaabihi wa li rasulihi wa li aimatil muslimin. màkk mhm. nii ne diine laayanti biir la. wax li yàlla wax ci téere bi. Mhm. wax li yàlla wax ci hadis bi. Mhm. li rasul wax ci hadis bi. wala lu yàlla wax ci hadisul qudsi waxit nag li ay ma islam wax yonentu moo ñu dénkoon xulafaaw raasidiina léegi lu tax ñoom ñu wute kii jaar ni kii jaar ni kii jaar ci nii kii jaar ci nii léegi nag wutee googu noonu dem ba kii bind kii refe refew ci ci ci benn saxaaba di bind ay ay ay kii kiyam ay waxam ne nii la ko waxee moo ko jëlee ci yonent bi nii Seydina Ali keneen ki ñëw Seydina Omar Xattaab keneen dem ci Abu Abubakar keneen jël ci Seydina Ousmane keneen jaar ca keneen keneen jaar ca keneen keneen jaar ca Abbas ne moom jëlee nañ ci moom li jëlee ci moom li te teewul boo ci jël kan day nekk lu wér. waaye nag moom xeetu yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam moom moo dip moo moo moo bindoo nii. moom sax waxoon na ko. waaw kay kon nag wuutee bii nag luy am na mais téere bi kan bu ñu ko bindee. Mhm. ñu xool ne téere bi nag dañ ko seggee ci xaddis. na nag téere bi dañ ko seggee ci alquran. kooku nag tabarakallahu neexma min ummati. tabarakallah jazakumullah xayran alors mesdames et messieurs nous ci deuxième partie de l' émission comme ni ma leen ko waxee chaque deuxième partie aji la ñuy daal di dalal salaamaaleykum aji. maaleykum salaam Thierno. maa ngi lay nuyu ami internaute téléspectateur de la télévision Leral TV amaan mbégte ak bànneex di leen dalal ci seen biir émission yoor yoor comme niñ koy defee rek à chaque fois rubrique bi nga xamante ne moom la ñu dippee biir internet biir internet nag dina leen may possibilité ngeen di poser seeni ay questions euh, oustaz mu leen koy tontu directement comme d'habitude rek Thierno ñu poser ko ay questions rek mu tontu ñu. d'accord comme d'habitude alors euh, y avait des questions yoo xamante ne mhm. euh, les internautes wala sax les téléspectateurs nous les mhm. euh, bi ñu jàll mais dañ wax ne dañ yéen téléspectateurs yi mun ngeen ñëwoo. Mhm. ci 88 628 02 02. Adji lan nga ñu indil tey ci ay questions. d'accord xam naa euh, questions yi dafay euh, continuer rek parce que amoon nañ fi ay questions yu bëree bëri mais mhm. à chaque fois rek ak ay questions yi nga xamante ne dañ koy euh, tànn. tey mhm. nag am nañ fi quatre questions. Thierre nag moo ñuy suivre depuis Turquie moom moo ngi poser question oustaz. mariage lan la d'abord. lan mooy mariage. lan mooy mariage bu ñu nee mariage lan la d'abord. oustaz. maanaam lan mooy mariage lan mooy tax ñu ne kii mu ngi ci sëy. waaw lan mooy sëy lan mhm, mooy mariage. waaw defe naa sax ñëwoon nañ ci ci thème mu leer nañ. Mhm. muy. Mhm. thème bi nga xam ne. dañu doon wax pour côté maye kii maye defe naa question la woon sax. ba ñu yaatuloon ci. muy mariage bu ñu waxee ne kii mooy mariage. mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis bi. ne jigéen daal. noo koy gisee. bokk na ca taar. zaatul jamaal. noo dafa ne lan mooy mariage waxul. waaw dama dama ci ñëw. Mhm. bokk na ceeg yooyu noonu yëpp mu ne nag diine. Mhm. xayrun mhm. bu amee diine nag moo gën. léegi nag boo gisee si moom diine. nga dem ci woy juuram ki nga xam ne mooy kilifaam de defoon nañ ci def kii bu yaatoo yaatu kii kilifaam ñëw taxaw maye la ko bis bu la ko mayee bis boobu yéen a ngi sëy mariage baa nga mais luy sëy lan mooy sëy comme ça. lan mooy sëy. takk neen sëy bi sa jàkka ja. lan mooy maye ko lan mooy sëy ba ñu koy takk lan mooy loola. lan mooy sëy comme ça. c'est quoi d'abord d'abord la question mooy mariage c'est quoi d'abord lan mooy mariage. sartu sëy. lan mooy. sartu sartu sëy la wala. naam. bu dee parce que genre euh, union de deux personnes muy ku góor ki ak ku jigéen. kooku nag euh, thème boppam lay doon muy xukk jigéen ak jigéen. mooy àq jëkkër ji. ak àq jabar ji kan wax naa la ko fii émission ne kooku dafa war a nekk tem hmm. àq jëkkër ci jabar ak jabar ci jëkkër bu dee sart yi nag bokk na ci yow mi takk hmm. yaa war a wodd sa jabar hmm. yaa ko war a dëkka muy war a lekkal yaa war a dëkk dëkkoo yaay kilifaam kan nag moom mooy sa taalibe kan sa kilifa moo la mën a maye parce que ñu gën ñu ngi bëggante dem ci keneen mu maye leen. non sa kilifa moo lay maye kan waxoon naa fii nee naa koo xam ne musta sëy sa kilifa moo lay may ku musta sëy musoo am jëkkër sa kilifa moo lay maye mais bu dee am nga jëkkër benn yoon tas ñëwaat. ñu bëgg la takk sa waajur ne day bañ bu la neexee nga xool ku la neex mu maye la parce que boobaa yow mën nga maye sa bopp mhm. ki lay maye nag isbu bi nga koy jox rek ne ko maye ma bu la mayee rek jeex na loolu moom mooy taxawaay bi léegi nag sëy nag moom mooy loo xam ne tabaarakallaa bu dem neen jàkk jàkk ja takk mhm. sëy am na bis ni ki tey nag la ca yàlla digaloon rek mooy am mooy mooy ku sëy ba pare mën naa maye boppam ku sëy ba pare mën na maye boppam baax loolu waxoon nag ko. baax na d'accord Adji bismillah la la la deuxième question. alors Aïcha euh, depuis euh, fois moom aussi moom ngi suivre moom nee na oustaz jigéen ban rôle la euh, war a jouer ci biir néegu sëyam. ban rôle la jigéen. war a jouer ci biir néegu sëyam quel rôle joue la femme dans le mariage. pourtant waxoon nañ ko fi de defe naa moom it. question la yoo xam ne ñëw nañ muy mhm. jigéen ci boppam xam nga yaa ko fi laajoon muy dalin koor jigéen na dalin ko rek kon kan jigéen na rôle bi muy sëy ci sëy kër gi mm-hmm. rasulullahi moo ne mm-hmm. boo fexee ba dab sa ngër màndi jëkkër mm-hmm. jëkkër boo ko fexee ba dab sa bàkkaar sa sa sa sa algana leer na waxoon naa ko sax ba ne la ruur yi ko war ci kër gi bëri na jigéen bokk na ci ruur yi ko war mooy lu ji lu jëkkër diggalam lu jëkkër lu jëkkëram diggale na fexe bu mu ko ko waxaat maanaam na na wax benn yoon na wax benn yoon sa jëkkër bu ne la lii def ko bul xelaat mukk mukk mu waxal la ko parce que loolu sax dafa am sanctionné bu la ci l'islam de sanctionné sa jëkkër di wax wax ju bëri nga doo ko def déedéet bu ne la benn neel nii def ko jigéen bi ci kër gi nag di sëy li ko war mooy mu topp ndigalu boroom këram moom mooy kilifaam yaayam nekkatul kilifaam avant yaayam di ko takk avant yaayam avant ñu koy maye ni yaayam nekkiwul kilifaam fu mu tegoon yaayam na teg foofu jëkkëram xam ne léegi jëkkëram mooy kilifaam mais am na ay yaay yu bari fu mu ne nii ñooy sëyal seeni doom waaw ba pare naan la nii ngay def ak nii dina dugal ci yoo xam ne kenn xamul lan la kan léegi nag nga gis yaay yoo xam ne topp ko dañoo ne sa way jur nga topp ko ah. sa jëkkër nga topp ko sa sa sa yaay bëggal la lu baax ci sa néegu sëy kan kan euh, damaa bëgg nag nga dégg fi may wax waxee wax ji mhm. waxuma ne da ngay dagg sa yaay yem sa way jur na leer kan. mais mën nañ ak mais dama ne la déedéet. maanaam wax waxuma ne na la da ngay dagg sa yaay jëm sa way jur mais dama ne la kan am nga jabar mhm. yaayam wax nga wax sa wax nag la war a wéy kan. Mhm. maanaam léegi yaay kilifa. damay wax ne mooy kilifa gi man fa laay waxee waaye wax ma nga am sa yaay ne da nga koo dagg naan daa. nde mën nga ko bañ a dagg comme par exemple. <laughs> li ma wax kan. Uh-huh. li ma wax kan. Uh-huh. mooy bis buñ la xasee maye sa yaay nekkatul sa kilifa yoratul sa isnu ku yor sa isnu mooy sa borom kër. oustaz lu tax rasulullah gi nee na wa ation euh, wa ation euh, zawjakum leen takk si euh, topp leen seen borom kër yi. lu ñu leen digal ngeen joxe ko. def ko comme duñ leen ko waxee kan. Mhm. yooyu tabaarakallaahu mooy léegi nag wóol bi ci kër gi bokk na ca. li boo bëgg-bëgg ba borom këram mu ndox ci. Mhm. toppatoo yaayam bi ci kër gi. Mhm. toppatoo ay doomam. Mhm. rasulullah yi nee na xaafisul maal na wëttu alalam tamit ci ci bokkee bu àddoo na wëttu alalam maanaam bu fa nekkul mu wëttul ko alalam li nga xam ne moo ko moom loolu dafa bokk ci sart yi nga xam ne rasulullah yi waxoon na ko yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax sa jëkkër nag bu la soxlaa ci lal bi nga wuyu bañ a takk biir te yow bañu sol ay kat diin te yow boo te yow bu fekkee soxla nga sa jëkkër mu bañ loolu du bàkkaar du bàkkaar te yow donc waxoon naa ko fii émission. loolu il faut nga ñëwaat ci parce que il y a en fait il y avait une question on on on souvent. Mm-hmm. léegi est ce tey ku jigéen ki mën na laaj bopp maanaam euh, ku ku góor ki boppam ku góor ki bañ loolu du bàkkaar. kan mais tey ku góor ki laaj ku jigéen ki boppam mu bañ loolu bàkkaar la. loolu bàkkaar la mais kan nag am na yoo xam ne jigéen ñi dañoo war a góor ñi dañoo war a bàyyi di ko def nag kan. oustaz sëy ak nag. moom laa moo tax nag kan. gis nga àq xam nga àq yi na ci. góor mais ni góor di la jigéen di soxlaa góor. góor ni mu koy soxlaa noonu la koy jigéen di soxlaa. mais lu tax koy jigéen di soxlaa noonu la koy góor di soxlaa. mais na kan maa ngi lay wax ne rek jigéen bu ñu ko laajee mu takk biir bàkkaar force da koy am mais nag góor gi liy farata moom bu ko jigéen laajee mu joxe. Eh, kooku nag tabaarakallah mooy farata gi mais ñu laaj la ngay takk biir yow di góor fas sa kalam. xam nga waxoon kan mhm. jigéen bu la tooñee kan. charia may na la bu soxlaa yow nguur gi bu la soxlaa nga dem aju dem fële. bu la neexee sa bul tëdd ci néeg bi dem fël tëdd tëdd fële. ci canapé. demal saal ba tëdd. am nga ci droit. mais donte soxla na la am nga ci droit. moo la tooñ bu la neexee nga def ko. mais oustaz yenn saa dara du xew. doo leen jote doo leen dara waxtaan gi leen macha allah tëdd jot na ku jigéen ki dafa sonn ku góor ki laaj ko boppam damaa sonn est que loolu. waaw loolu loo sonn sonn nag jëlal li ngay jël rek boo paree nga noppalu. mais sonn. mais kan bu la mënul may jox ko kan bu la mënul may da ko koy jox. <laughs> maanaam. bu mënul muñ jox ko ko. bu mënul muñ maanaam. su mënul muñ affaire bi jox ko ko kan maanaam mais nag kan ah. kan nag na góor ñi nag di moytu di sëy sëy bu bëri sëy baaxul bu bëri sëy bu bëri bu baaxul de loolu moom yow médecin nga wala laa takk jimaa yaa ixwaani mata talatum si atul jusmaan neena soo bëggee di am wér gi yaram gu bëri. del sëy. del wàññi sëy bu bëri. oustaz oustaz. nee na laata ko sunu jimaa bul bëril sëy. yaa ixwaani ee eh yéen samay mbokk mata talatum si bu dee da bëgg am wér nee bul bëril sëy bu bëri nee na amal jimaa falawul afaat bëri na ñoo xam ne sëy bu bëri moo leen faat di sëy rek kan. kan ngoon nga sëy. kan suba nga sëy gannaaw suba nga sëy kan da ngay feebar bokk na ci tamit kasiratul kama rawa ruwaatu inal jimaa yuxliku rijal parce que nee na sëy bu bëri day alal góor. mais bu dee yaa ngi entraîné bu dee yaa ngi entraîné tey dara dalu la yaa ngi. xale nee na sëy bëri day waral feebar. nee na bëri na góor ñu dee ñu bëri sëy bu bëri leen ndey. oustaz médecin yu bari na sëy day alal day alal góor. oustaz médecin yu bari li liñ lay conseillé. muy na ngay sëy. parce que sëy dafa baax ci wér gi yaram. nee na sëy. ba léegi waa <laughs> nee na sëy bu bëri day waral da ngay dem ba sa nopp day tëx yu si mu mën asaan wa yu daaful basari day dem bay fóoral say bët sëy bu bëri kan day tax ba say nopp day tëx nga dem ba sa bët nga commencé di fuur gis bu baax sax di commencé nekk sa problème. yooyu la mu ngi noonu nee na. yow xale yu am. day gàttal yow xale yu am myope nii et cetera su suñu genre yi nga xam ne koo ci gis day solver ndax bët yi baaxul. mais sëy sëy bu bëri baaxul dëkkan. waaw mais loolu est-ce que sëy moo leen ko yóbbee. non waxuma ne moo leen ko yóbbee mais dama ne sëy da ngay gis benn maanaam waxuma comme ñàkk sëy mais dama ne sëy bu bëri maanaam takk sa soxna kan laa wax ne ci rek ne ba lundi mercredi jeudi vendredi vendredi nga sëy samedi nga sëy dimanche nga sëy lundi nga sëy. ah boo ko mënee nag. ah dimanche nga sëy. boo ko mardi nga sëy. oustaz mercredi nga sëy. oustaz kii dafa dem ba ne kii dafa dem ba ne. dee leen dee leen sëy nag. wal nadd bëggu laylatul isnayni wal laylatul jumaatu doona may ni nee na nag bisu altine ak bisu aljuma rek baax na <laughs> tànnal altine ak aljuma mais semaine bi yëpp nga bëgg ko sëy kan. oustaz oustaz oustaz bii sibuñ ko xadis bi kenn sibu ko. wa kasratul jibaa non non kan moo bëgg a xam parce que. genre tànn wa kasratu jimaa yuhlikul fataa nee na wa kasratu jamaa yuhlikul fataa kama addisumul kitaabi qad ñëw ci ñëw ci ñëw na ci téere yi ñëw ci addis rasul wax wax ju wéet ne jimaa ci bopp day asal day alak day alal nit. lan. sëy bu bu bëri la wax man de je pense man man de j'ai le droit de dire ci lay yow Oustaz dinañ ci ñëwaat Adji est-ce que vous avez une question <laughs> si am nañ deux questions euh, yu des mm-hmm. kii nag euh, dafay laaj euh, Oustaz mm-hmm. lan la ñuy mën a différencier <coughs> entre mm-hmm. jabar ak soxna jabar ak soxna jabar ak soxna lan mooy seen différence lan la ñu différencier entre jabar ak soxna nan la ñu mën a différencier jabar ak soxna waxoon naa ko nee naa la jabar jëm ji day mën a jàmmat baa gi day bëri wax raa gi day réew yàlla nañu yàlla musal ci jabar jabar moom baaxul mooy soxna soxna nag mooy sir gi day sellal sellal rek xaaf gi day xàmmee mais gis nga am jabar ju xàmmee nu mu neexee kan xàmmee xàmmee mooy waral nga mën a accueillir gan kan xàmmee dafa neex de kan mooy waral sa jëkkër bu amee nga comprendre ko bu amul nga comprendre ko xam ni nun gi nag moom day nangu day sawar li nga bëgg rek mu dox ci kon nag jabar baaxul soxna moo baax sin gi day salal xaaf gi xàmme nun gi nangu. waaw mais loolu est-ce rek. waaw ay mots yu gën la nag. xam nga olof moom dafa xut. déggoo li ma la ay mots yu gën la nag. soxna ak jabar. waaw soxna jabar. benn la. soxna jabar mais soxnaa gën nañ jël soxna. ba jabar soxna tur la. nañ nañ jël soxna bàyyi jabar. <laughs> alors ta dernière question vite fait. après nga développé ma tuuti parce que man it aussi j'ai une question pour vous. <laughs> d'accord dernière question bi euh, kii nee na oustaz est-ce que koo xamante ne dafay gis mbaax mën na sekk ak boroom këram. waaw maanaam koo xam ne dafay gis mbaax dafay gis régal est-ce que mën na séq ak boroom këram sëy déedéet. lu tax oustaz loolu c'est moo ne. jigéen bu xasee gis reegal kan bul sëyeg moom mais indiwuñ ci la pourquoi fa taslu nisaa i fil mahidi wala na alquran ne ni jigéen ñi bu ñu amee reegal bu leen leen jege bu leen sëyeg ñoon sharia nag li mu la may kan mooy mën nga foo foo foonante yooyu may fa sharia may na la ko folote kooku sharia moo la ko may mm-hmm. mais nee na jigéen bu xasee am reegal sharia nee na la bul sëyeg moom yëwut yi dañu ko doon def ñoon boo amee boo amee réegal am na ñoo xam ne dañu naan duñ tëdd ak yow ci lal bi kan am na ñoo xam ne dañu naan dañ lay génn néeg bi am ñoo xam ne dañuy dem sax ba génn la kër gi nasaraan yi ñoon boo amee réegal dañuy jaxasoog yow sëy yow charia nag ñëw taxaw ci ñaar yépp na yeggul nga génn ko ci kër gi yeggul nga tere ko néeg bi waxumal ak lal bi waaye tamit nag doo sëy moom d'accord charia lim la may mooy jigéen bu xasee am réegal mën nga fóonanteeg moom waaye jumba xam kan ba ci bëti umam charia tere na la nga di ko jege moo tax nag fa'tashiruu nisaa fil mahiidi waaye wala taqrabuhunna wala taqrabuhunna nag bul jege goog xam nga du ko olamaa yi firee hmm. mooy diggante jumbax bi bëtu om bi bul jege foofu waaye bu dee nag ay fonante mais par exemple ci premier jour bi mën nga bàyyi deuxième jour bi mais troisième jour bi tu peux attaquer déedéet bu régal bi demee ba tëj mais am ñoo xam ne yaa oustaz seeni règle dafa normalul nag mais kan régal moom na leer gars yi xam régal régal quinze jours munu ko dépassé bis bu dépassé quinze jours feebar la kan na faju ji ko na bàyyi yooyu muy def dem julli ji d'accord régal bis boo ko amee kan mais mënoon ñëw juróom-ñaar fan. normalement du dépenser du du du dépasser ay. mais am na am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne kan bëri na bay dépasser seen quinze jours te sariya 15 jours la wax xam satul ayam bis bu ko dépassé daf ne nañ bàyyi xel na feebara ne ci moom. na sangu ji julli ji te faju waaye daal góor na bàyyi xel na jigéen bu see reegalam araam na ngay sëy ak moom ca reegal même boo nekkee jëkkëram même boo nekkee jëkkëram boo maa bu bu man kan kan nag bu ma tuddee sëy sëy ñu def ko ci écran bi tudduma ay ay ay ay coro kan kan tudduma coro kan tuddumay mbaraan ñoo ñoo dàq sëy nag fu kan tudduma ay ay ay ay ay doxaan ak yu jeex kenn sëy laa tudd sëy lu sariya santaane d'accord waaw ah, kay d'accord d'accord alors est-ce qu'il y a une dernière question non question yi loolu la woon rek super alors euh, euh, ci internautes yi déjà en mhm. général dañuy gis ne ñoo xamante ne dañuy poser yenn question yu xaw a dérangeant un tout yow euh, en tant que jigéen tey nan nga gisee thème bi parce que foog nga ñëw ci tamit sa avis dañ ko ciy soxla parce que bii moom nekk na euh, thème boo xamante ni euh, dafa nekk euh, actualité parce que Thierno gis nañ ni léegi sëy yi mën nañ ne sax nekkatul sëy des fois da ngay gis jigéen boo xamante ne bon intérêt moo koy dugal ci góor am ñoo xamante ne aussi euh, dañ leen di forcer mais sëy dafa nekk loo xamante ne dafa sacré euh, booy dugg ci néegu sëy na fekk ku ci nekk mu bëgg dara bum la ci dugal parce que gis nañ léegi sëy yi ni mu ni mu baree aussi des fois ci côté góor ñi la parce que damay gis euh, oustaz day nekk ci côté góor ñi de trop mais góor ñi aussi des fois dañuy bàyyi sa seen loxo parce que boo nekkee jigéen des fois boo amee sax 5000 nga jël ko for ko ne ko demal moom mu sentir boppam xam ne kat man mii bëgg nañ ma donc loolu dafay dafay neexal si même bu fekkee yoroo des fois loolu da ciy baax ku jigéen ki tamit xam ni dafa bàyyi kër papaam kër yaayam ki mu fekk si mu respecté ko euh, jox ko cër defe naa ni euh, loolu buñ ko defee rek sëy yi dina neex aussi goro yi génn ci di leen jàppale ah. eh, waaye sàmm oustaz am na ñoo xam ne dañu sëy ku ku yaayam dund ah, boobu am na kan ñoo xam ne li ñuy ñaan mooy. Mhm. wallaahi laazim li ma la wax nii man maa ci teg sama nopp. bu fekkee sa yaay mi ngi dund. Mhm. duñu ñu sawar sëyi sa kër. maanaam ñoom bëgguñu sëyeeg koo xamante ne yaayam mu ngi dund. subhanallah aduna bi àgg na foofu. mais mais na loolu boo ko gisee parce que xam nga lan moo tax sëy yu bari léegi ñoo ngi tas goro yi ñoo koy tas. moo tax léegi daal goro yi. mais goro yi sëy la ñu xam mais jigéen bi mu ñëwee ci kër gi kan sëyul mhm. goro yi faaw ñu wax parce que ñoom sëy la ñu doon def mais kan nga jigéen boo xam ne ñëw na de comme genre deux mille gii ñëw si na man du ma sëy lu ma neex laay def ci jamonoy appartement mais mais des fois lu ma neex laa koy defee léegi nag mhm. kooku yaayam ku góor ki yaayam bu nekkee sëykat du taxaw ne ah li ngay def du sëy parce que lii ak lii mooy sëy lii ak lii ah loolu la ñuy bañ moo tax ñuy ñaan kon ay eh, eh, buñ buñ fa buñ fa. fekk loolu li ñu cërloo tabaaraka loolu yooyu yooyu yooyu yàlla ci yàlla ki léegi nag jigéen ñi ay maquillage ak yooyu noonu pour nga jox ko mu dem solo hmm. mais jox ko mu jënd collègue kan. waaw mais waaw loolu. boo comme ni ma la wax rek. ku nekk daanaka ni ngay ni ngay bëgg sa sa jëkkër bëgg. alors aji. mais jigéen ñi ñu jàmbaar leen bul yaakaar ne dama na ci côté góor ñi rek mhm. jigéen ñi ñu jàmbaar kan am na kër yoo xam ne wallaahi jigéen ña fa nekk lu fa dee ñoo ko rey te ñu ngi ne tekki na ne mit waxuñu loolu loolu sax la. man maa la nuyu alors Adji vite fait donc nga tàggatoo. d' accord amoon mbégte ak bànneex rek comme ni ñu koy defee à chaque fois seen émission yoor-yoor di andi nag li nga xamante ni moo di ay question ñu koy posé yaa oustaz du ma di leen ko wax képp koo xamante ne rek am nga lënt-lënt ci say biir bopp comme man sama genre gi dina ci baax ñu koy posé di ko génnee pour ñu gën a xam suñu diine juste di leen jox rendez vous rek incha allah. yaa waa tabaarakallaahu ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp ñu ngi lay bëggee it tabaarakallaahu yow bëggee it baarakallaahu macha allah euh, aja assu ñaan yàlla yàlla na yàlla barkeelal ñëpp seen i mbir bi jaaxi si gi dunaa Muhammad ñaanal la yàlla lépp loo xam ne dañ ko fay wax rek muy njëriñ yiw bi yàlla nañu ko bokk ñun ñëpp bi jaaxi si gi dunaa Muhammad ñaan yàlla yàlla yàlla barkeel lépp bi jaaxi nabil Mustafa jërë ngeen jëf ba mercredi incha allah. la question que tout le monde se posait à savoir est-ce que duñu xool comment on va inviter des gens c'est possible maintenant puisque maintenant yor yor day am tous les jours ba vendre maanaam du lundi au vendredi lundi mardi mercredi jeudi ba vendredi les deux jours muy merc muy mardi ak jeudi dañuy faral maintenant di am ay invités yoo xamante ne dinañ ci jóge feneen peut-être Oustaz aura l'occasion d'en parler après mais en attendant d'ici là portez-vous bien chers téléspectateurs ngeen doon xaar tàkk na de leeral TV 100 pour cent xibaar maa la ko wax te nag bi fépp la yegg ci senegal de décodeur TNT ba nag ñu ngi canal 33. leeral ay xibaar yu gaaw te wóor